voilà Seydina Fall Bougazelli ñu ngi lay nuyu. Eh, maa ngi leen di fay waa Sénégal euh, Sénégal 7. <laughs> alors voilà ñu ngi lay fay bu baax euh, li waral ñëw bi nag ak waxtaan bi mooy li nga xam ne génn la tey mhm. euh, ci média yi d'abord ban seetlu nga ci def ban jàngat. waaw jàngat bi ma ci def mooy man lu ma bett la. Mhm. ci corps bu toll ni gendarmerie nationale euh, même raykatu nit sax soo ko jàppee amoo droit filmer ko ba koy publier benn lii dafay wane commencement ba rek la ma doon wax complot bi am entre la gendarmerie ñenn ci élément la gendarmerie ak opposition bi yàgg naa ko wax lii leneen la lu ci wane ndax bi ma ko gisee ma dund ko nag ak philosophie ndax sama njaboot a tax yëngalu ma dérangé wu ma mais nag dëkk bi dafa am yoon parce que lii ngeen di gis nii un gendarme de république moo ma doon filmé mooy Abdou Aziz mbay moom moo ma filmé bu ngeen xoolee vidéo bi moom moo doon dajji kee moo doon dajji kees gi yor téléphone bi di filme di génne billet noir yi moom moo doon wax noonu si suuf ndax lañ koy réglé di ma piéger pour ma wax moom moo ma doon piéger noonu di ma wax te amuñu woon droit sa interroger ma foofu mais ñoom ñoo ma doon wax loo pour may wax ay dañ ko dañ koy réglé nuñ koy réglé dem na ba proposé ma benn somme bi ma ne ko aw ma loolu léegi nag comme moom bu dee dafay politique politicien la man dinaa ci xam dara wala bu dee dafa jóg pour toroxal ma man dinaa ci xam dara Sénégal gépp wallahi azim ba si opposition bi sax am na ñu ma wax sañ ko naqaru te ñaaw la ko ne un gendarme warul te def lii même bu fekkoon ni sax fukki film la woon sax waru woon fi fiite bay génn rawatina benn gendarme moo ma doon filmé kenn moo fa yore woon téléphone bu mën a filmé. mais est-ce que am na droit droit film filmé bi est-ce que. mais amu ci droit hmm. amu léegi nag bu ñu demee ba suñu réew léegi waxuma sax euh, euh, nit ay civil mais un gendarme buy sol tenue ah un fonctionnaire d'État nekk gendarme enquêteur di liggéey di filmer doomu aadama surtout un responsable koo xamee ni moo la gën a nekk kilifa gën a nekk kilifa sa papa nga di ko filmer pour di ko toroxal xamatuma si dara hmm. moo tax sànq bi may wax ma interpellé non seulement le ministre des forces armées waaye ma interpellé le général Moussa Fall xam ni nag dinaa yóbbu yëfi ci yoon kenn filmé wu ma Abdou Aziz Mbaye moo ma filmé dama ko jox ba mu génnee ko loolu après yoon bu ko toppee mooy def liggéeyam xam kan la mais film bi moom Abdou Aziz mbay moo ko def parce que si oto bi ñun ñett ñoo ne ci ginnaaw chauffeur bi ak kanam jeex na. sa oto la woon. sama biir oto la. Mhm. amul kenn ku ma filmé ku dul moom te pourtant li dal kilifa ci xaritam bi dal na ma ci moom moom teraanga ñu ne defal naa ko moo dàq ñaan xaalis moom moom Abdoul Aziz Mbaye Pikine la dëkk bi ma koy mujjee ma bi ma koy mujjee may xaalis Pikine laa jóge di ñëw mu kar ma ci buntu bi euh, euh, buntu Pikine mais léegi si ban réew lañu nekk ak lii lan la ci jublu mënumaa yàq yàqalu ma yootaan mm-hmm. yàqalu ma sama politique euh, yàqalu ma sama liggéey yàqalu ma sama dund maa ngi dox samay soxla ba ba léegi maa ngi doxi samay soxla nit ñee fii ñëw fees fi dell ku nekk di wax ku wax nag te nga ci wax ju ñaaw moo ko yóbbee boppam mais man li ma war sama diggante ak moom consulté naa sama avocat Kéledor consulté naa El Hadj Diouf dinaa waxtaan ak Seydou Diagne suba ak yeneen ñaari avocat bu dee dama ko si yokk ba yokk ko si ñoom jël nañu huissier mu ngi consulté mi ngi mi ngi kii les faits ñu déposer suñu plainte devant le procureur de la République. d'accord contre Abdou Aziz Mbaye la gendarmerie nationale. d'accord si biir oto bi ñu ngi gisoon euh, des éléments yoo xam ne dañu la wóoroon ñoom ñëpp c'est des éléments de la gendarmerie. ñoom ñëpp gendarmerie la. Mhm. et puis mat nañu 30 sax mais ñooñu ñoo newoon si oto bi parce que pour ñoom bandi lañ doon jàpp c'est-à-dire dañoo préparé woon rek ku ñu mhm. wili pande ak ku ñu toroxal. Mhm. parce que député de la République la. ci ci ci ci Bokk Yaakaar la bokk. Mhm. mouvement présidentiel nañ koy xajabal. nañ mhm. ko xajabal député la Benno Bokk Yaakaar mouvement président la bokk ah nañ ko xajabal li ñu doon wax ci presse bi yëpp noonu noonu ñoom ñoo ko doon génne. mais lu tax nga wax complot wax euh, euh, opposition bi wax gendarme bi euh, danga jàpp ne dañu coaliser peut contre sa personne. dama ci xam lu bari. mooy lan te dama ko ay autorité mhm. y a des éléments yoo xam ne ay gendarme lañu lañu lañu dañ doon rendre compte ñenn ci opposition bi ba ci yenn journalistes yi li ma xam dafa bari. Mhm. mais comme que dossier bi dafa nekkoon au niveau de la justice doyen des juges dama aw ma woon droit wax ci. Mhm. samay avocat dama amoo droit wax ci moo taxoon ma nopp ci. mais lu waral waxaat bi ba léegi euh, ordre boobu moo taxaw ba léegi wala. lii andi lii euh, vidéo bi moo tax ma leeral lii mhm. Abdou Aziz Mbaye jóg na pour xool góor gu set wicc jullitu yàlla jaamu yàlla boroom njaboot mu jóg bëgg koo toroxal àdduna mhm. bi yépp teg ci seen bët ku nekk nag woo na ma ba à l'extérieur lu ci waay woo lu ma ci waay waxul ci mhm. Abdou Aziz amut am na ñu ko xam sax ñoo xamee ni dañ ko doon tifaar léegi booy wax ak ñoom téléphone naturellement il est comme ça. kon nag yoon am na ci dëkk bi moom na xam ne te coow la bëgg man samay mbir lépp coow la man samay mbir mel noonu samay mbir lépp coow la dina doyal coow. d'accord alors ci biir ci biir vidéo bi bu ñu xoolee bu baax euh, gis nañu njàqare bi nga àndaloon lan moo koy justifier waaw parce que lu ma foogul woon la. loo foogul woon ci présence su gendarmerie. wala loolu dana am ah, parce que ñoom li ñu doxalee ak man la. Mm-hmm. te loolu su fekkoon ni xaalis la bu may raxas xaalis bu may raxas man. Mm-hmm. sama oto dugal laaj du ma ko dugal sama oto. te ma mën ko xam ko te war koo def. ñoom duñ ko sax gis daan. Mm-hmm. yaa ngi dégg ba loolu amee yoon def na liggéeyam ma am fulla ak fayda gu toll ni ak ngor gu toll ni dindi sama illimité parlementaire bopp ma démissionné. su may collègues yu bari na ma bul démissionné kilifa yu bari woo ma ne ma bul démissionné ma ne pour mettre la président à l'aise jar na ma dem kaso bi ma demee j'ai fait sept mois en prison ci loo xamee ni man dañ maa tooñ man ma jàpp ni man dañ maa tooñ samay avocat xam ne dañ maa tooñ li na si dossier bi a yéeme sax li na mm-hmm. moo gën a yéeme li ñu doon wax lépp dara amu ci dara dara jàpp ay xale dóor leen maas leen courant yóbbu leen géeju yoof ah chargé leen buggaa ñu bàyyi leen ñu ne xamuñu ko ñuy maas di dóor ba am ko ci feebar hôpital la mujjee ku ñuy wax xalifa te jàppe wuñu leen dara xale yoruñu dara dara dara dara dara dara d'accord léegi ba léegi ci pour leeral askan wi rek gis nañu ci vidéo bi yaa ngi wax benn jam benn moment euh, que yàqu naa waaw yàqu naa mooy mhm. ñoom loolu lañu si loolu la si jublu woon rek yàq ma rek xam nga rek parce que bi mu nee ma dañuy négocier ma ne ko négocier fan wax ma ne ko noonu. Mm-hmm. lu tudd benn somme ma ne ko aw ma ko. ne ko nañu dem brigade de recherche te gis nga pourtant boobu avant boobu man fi ma toog gis naa ko si benn site ñu ñu affiché ko si sama téléphone avant ñu ñu jël sama téléphone maa ngi ko jox sax. Mm-hmm. même affaire yu mën yëg yëpp bi ñuy wax noonu bi ñu commencé di wax laa ne la gaara comme waa ji naan chauffeur bi non non non non waaye kii arrêté leen ko waaye balaa muy dal sama kaw dañ lay mënatu ne ma ne ko am mënatu leen ma mais Abdou Aziz Mbaye waruma filmer man mhm. man li ma teg ci réew mi waxuma la moom mais bàyyi sax teg ko ci réew mi ba mu may filmer man man waruma filmer mhm. moo tax dinaa ko topp ba mu jeex tag lépp lu ma am danaa ko ci def yoon àttañu maa ko ëpp responsabilité fop hmm. man maa ko ëpp li ñu li ñuy tuumaal d'habitude ñi ànd ak Macky ci moom nga ko wéer walla ci yoon li ñuy tuumaal légalement ñi nga xam dañu ànd ak Macky Sall ne bu ñu bokkee ci Macky Sall d'habitude yoon du leen mënal dara li ngay wax ni foofu nga ko kii yoon du mooy lan su yoon mënal du woon dara man dinaa dem kaso hmm. ah, su leen yoon ma su ma démissionné woon du ma dem kaso fekk gindi wuñu sama immunité parlementaire mais pour man président def na yoonam newu ci mm-hmm. loolu la wax loolu la wax ñëpp wax yoonam newu ci na yoon def liggéey mm-hmm. yoon a def liggéeyam ba gis ni mën na maa bàyyi ci liberté provisoire mu bàyyi ma dem te billaahi wallaahi taalaahi Cheikh Samba Sall mu ngi ci dëgg mm-hmm. yàlla na xippee àjjana maa ngi ci dama koy fekk toog na devant mes avocats dama regardez-moi ça lii aw ma lenn lu ma la si mën a topp. ah bon. billaahi wallaahi taala Samba Sall wax na ma lii devant mes avocats. ba nga amee liberté provisoire beeg léegi dossier judiciaire bi fan la ci toll actuellement. waaw depuis lors comme Samba Sall moo ko yoroon. suñu mhm. borom jël ko yóbbu ko àjjana maa ngi xaar keneen ku ñëw mais man xel mu dal laa ci am. ci des avocats yoo xam ne ni sont extraordinaires. Maître hmm. Clédor El Hadj Diouf Seydou Diagne ba ñu téyee dossier bi xool ko. Hmm. lañ ma xamal ni lii c'est vide kenn mënu la see topp dara. parce que amul sens yi ñuy wax ci presque bi yëpp amul moo tax gëwuma trafic de visa yi ñu ci député yi gëwuma ko lu tax gëwuma ko acharnement bi ñu doon def ci man rek laa gisaat fi. ba ci ñoom waa Yann Amar aussi. ñoom acharnement boobu rek laa gis presse bi. ku si nekk am nga say noonu. noo ko mën a expliquer loolu. kilifa. Mhm. ki mu séqal séq naa ak moom mais waaju ko filmer man dama ko mere dama ne ni rafetul. Mhm. dama ko mere waru ko filmer kilifa dafa am jabar xam nga loolu wax naa ko avant lii di ñëw seen émission laa ko waxee. Mhm. waru ko filmer parce que man injustice doxuma ci mais kii dafa jóg pour saboter nguuru président Macky Sall jóg tamit pour yàq ma man mais dina xam ne maa ko gën a pare ci côté yëpp. man duma ko yàq. d' accord ban message ngay délivrer ñi nga xam ne ñoo war a taxaw ci ñi nga xam ne dañuy jël seeni téléphone di filmer di xaawi sutura lan la ci état war a taxawee comme taxawaay. non lii état da si war a jël ay ay ay ay ay yu sévères. Mhm. parce que lii nit ki am na noo koy defee da nga koy rey da yàq àddunaam man nag damay ndonga daara moo tax lii mënumaa yëngal suba damay dem def visite de proximité sama programme dama koy continuer suba. Mhm. sama politique visite de proximité ak ñu ma war a recevoir. yàqul demee demee yàqul dara say activité yàqul dara samay activité man lii dafa ma mën a yëngal yëngalu ma xam nga lenn rek. Mhm. moom ma mënoon yëngal si àdduna. ñu ne maanaam day taal bu gazé moo faat kii te tey ko. Mhm. danañ ko fekk muy njaalo ndax mosuma koo def ba toll ni ma toll. macha allah ñu ne dañ koo fekk muy njaalo wala dañ koo fekk mu faat nit wala dañ koo fekk mu naan sàngara. wala dañ koo fekk muy jox yàbbaa waaye yàlla suñu borom suturaal na ma yooyu yëpp ci barkeb Serigne Saliou. Mhm. du ma ci def benn. Mhm. loolu moom ma mën a yëngal mais ay vidéo yi koo xamee ni da nga jóg xaw ma dañ la fay xaw ma nga jaay nga nga nga jaay vidéo bi xaw ma dañ la dañ la dañ la neexal dara xaw ma loo ci jublu waaye li ma ci jàngat mooy dafa jóg pour yàq ma man. d'accord waaye nag danaa ko wan ni. Mhm. mënoo maa yàq. d'accord euh, bi vidéo bi génnee ñu bari ni nga ko waxee naqarlu nañ ko. rafetul xaawi na sutura kilifa njaboot sa njaboot googu naka la ñu réagir ci vidéo bi. Eh, ndeysaan dama toog ba yàgg rek suma benn doom bu tudd Serigne Saliou. Mhm. <laughs> fekk suma doom bu jigéen bi nday ma ne dama bi nag ma ne kii yéen man may politique lu ne cee fekk. doom bi Serigne Saliou te nekk daara ñëw vacances Serigne Saliou daal dina kii yàlla na ko yàlla rëbb ku def lii. billaahi wallaahi taalaahi te sax mi ngi ci néeg bi. ne ki def li yàlla na ko yàlla rëbb xamul nag ku mu laal kan la hmm. man duma ko ñuy foye après lay comprendre la après lay comprendre si ñaari côté yëpp dinaa dem ak moom ci yoon ba mu jeex takk benn ñaareel bi dana xam ni tooñ na ku mu war a tooñ hmm. waaw ñu jaajëfal la kon bu baax si Fall waaw man it maa ngi leen di jaajëfal hmm. nga ni ak heure bi ngeen fi ñëw guddi na mais sant yàlla tamit waaw di wax daal euh, àdduna mu solo li gën a bon si àdduna mooy tooñ mhm. euh, sëriñ mbay mu ma abdou mhm. doomu alaaji abdou Aziz Dabba mhm. dafa naa sëñ mbay la nee na kuy wëññë sutura doomu aadama di toroxal nit dinañ la fekk ba sa biir nekk toroxal te waxoon na ko Ousmane Sonko Abdou Aziz Mbaye di man lay jéem a toroxal Sénégal yëpp maa ngi leen di lancer défi xool leen maag moom fu muy mujj d'accord maa ñaan sama borom yàlla na ma àtteeg moom. d'accord ma ko ko. Mhm. te duma ko ko te duma ko ko mës baal. Mhm. ba keroog muy dugg ci kuusu bàmmeel duma ko baal. yoon nag danaa ko ci topp ba mu jeex tàkk. Mhm. waaw tooñ na ma tooñ boo xamee ni man ku dul moom sax maa ko ëpp responsabilité man dama yor ay njaboot samay doom laa yor ñoom laa dëkkal fii. dama yor kër fii yor kër fële nekk fa ak samay soxna ak samay doom samay doom samay nawle lañu. heureusement que ba ma mën ba ma mën leen a maîtriser. Hmm. amoon am naa doom ju mag yoo xam ne bu fi nekkoon tey fu Abdou Aziz Mbaye dugg ci rek moo ko man moo ko ëpp doole moo ko dàq lépp donte homme de tenue la bu fi nekkoon ba bakkanam la koy jaay dana ko wëri ba gis ko waaye dana xam ni laal na bàyyi jàmbur hmm. man bu gaasé bi borom dëj bi mën naa jooy dëjam man la ko seqal man la koy defanteel ba mu saf sap. d'accord jërëjëf kon. jërëjëf waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. merci beaucoup.